laa bëgg li muy gàtt gàtt boo noppee Serigne Saliou Samb waxtaan a yéen ci sëriñ bi te daje bu nu daje mbooloo teewe bii damay bëgg lii sunu aada muy sax ci sant Serigne Saliou mu doon rekk da duy dajale lii duy def lépp yéene ji mooy sante ko Serigne Saliou li ko waral matul ñu di ko guddal yéen ñëpp dégg ngeen waxe suñuy limaan ju baax ji maa ngi leen di seere ni sartaat na sëriñ Saliou leen ko seere yéen ñëpp li tax duma ko baa duma ko détaillé maanaam du jar man di ko wesal ndax yéen ñëpp xam ngeen ko ko doy ci sa bopp xam nga li ngay sant sëriñ Saliou te lépp la te dara warul nu lu dul sax ci man daal foofu laa woote boobu nee dara desatu fi lu dul sant ak jariñu sant ko rekk fi des jariñu nag moom de su ko jàngal kenn ñun ñëpp nangu ci waaw kon bokki taalibe yi magal gi dëgg na ah ca tàkkoon Seydu Manin waaw waaw moom day màggal gi màggal gi màggalu Sëriñ Tuubaa ñoom ndigal li ñu ci jot ginnaaw ba Sëriñ Tuubaa sante képp ku am bis bisu màggal gi bu dellu see nga def ci mu ci digle noonu Serigne Saliou ci biir ndigal loolu dana ko gën a leeral gën ko euh, euh, dolli du ndigal la ye gën koo yeesal ñoo ngi ci góorgóorlu waaye ku dégg na mu waxe ni bu nu demoon ci màggal bi bu ñu màggalee bu jëllëg sa mbeddi Tuuba yépp fees ak engrais dawal yoo xam ne ba nit ñi jëfandikoo ba noppi daa des nee àggagul ci màggal gi kon mbokki taalibe yi màggal gi dañuy jiir di ko jëf ni ko sëriñ bi diglee waaye gaa ji lu mu jiir jiir jiir jiir màggal gi moom fa ko sëriñ bi teg kurul ba mu xamoo ko rek ko ay gaa yi bu leen nii daaw def nañu ren def nañu nangam lu weesu loolu defoon bu ngeen yaakaar ni matal danu ni nu ko ni ko sëriñ bi bëggee fa mu ko aj munu màggal ba jël sa mbeddi Tuubaa yépp fees ak angaari ndaw taxul du yegg ca xam ngeen ni yeggaguru ca wax ji yéen jataakoon nag faaw ma maa ngi ñaan màggal gi ngeen waajal ko ngeen góorgóorlu ci na ngeen fagwaat te yeesaat fekk waaw ba fekkente ne eh, yàlla dafa may tàllu be fekke ay ay màggal ay màggal ay màggal liin ba defe ne léegi nag loola day xaw a mel ni lu féete ginnaaw ndax jaar nañ ci jaarat ci dama bëgg fii lu toll ñu yeesa fekk màggal gii mu dëgmal doon màggal gox day mel ni tey yii la ko sëriñ bi woote lu ci waay jëfal na ko xeet rek waay gars lu ci waay jëfoon ko xeeb daa ngeen jëf maa ngi ñaan xaatim général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké sunu xalifa bu tedd bi yàlla bàyyi ko fi ma ñaan ji de sama xol bi ko teg